ndeysaan arbitre baa ngi wax ak ñoom li nangu at li bañ Zoss 3 ar Arafas ndeysaan sa soo ar Arafas taxaw na kon combat bu njëkk bi moo nekk nii Zoss 3 ar Arafas Zoss 3 eh Arafas Zoss 3 jàppante nañ Arafas Zoss 3 jàppante nañ ñoom ñaar dañ na prime na ne runkum daje ñoom ñaar Ara Fass ak Zoss a ngi rokos Zoss a ngi waaye Ada Fass a ngi fu mu jàpp Ada Fass ak Zoss 3 Ada Fass Zoss 3 eh Ada Fass Zoss 3 eh xale xale yaa ngi bëre de saan ndeysaan kii bàyyee ko Kër Massar Malika saan Ada Fass Azos 3 Ada Fass Azos 3 noonu ar bi def na prix la ñu ne daje ñoom ñaar saan Ada Fass eh Zos Zos a waaye Ada bañ Zos 3 a ngi waaye Ada bañ eh kosuma xoolal ba kosuma waay waay waay ba kosuma waay dafa daanu waaw waay waay waay lii mosuma kaa gis waay hmm. xoolal ma ko suba ndeysaan daa ko sefa daanu Ada Fass Assos 3 Ada Fass Assos 3 ngi noonu bañ jàppante ba lee taxali ko ñu ngi sërëxal bu sew ñoom ñaar sërëxal bu sew boobu bugg naa ko de puso boobu Poussa machine boobu bëgg naa ko saan Ada Fass at Jos 3 at ñoom ada ada eh Ada Fass a ngi waaye Jos a ngi jàpp Ada Fass a waaye Jos a ngi jàpp ndeysaan ñaari xale yaa ngi gi Jos 3 Ada Fass Jos 3 bët na bañ na Zoss 3 bëtt na ko Ada Fass bañ na ñaari xale yaa ngi doon si géew gi ndeysaan Ada Fass ak Ada Fass Zoss 3 day demi flexion waaye du yegg Zoss 3 day demi flexion waaye du yegg saa ñaari xale yaa ngi doon si géew gi xale yi na biir na ñu ne daje আদাফাস বাজোস্তুরা লিগ আই টেলিফোনে পা ওরনা ফাতান গি বু জেগে পা বুলা তাখাবলে দো টোক আদাফাস রাচিনা জস্তুরা তো খোলে আদাফাস আক জস্তাহাওনা ওয়ায়ে কমবা বি মখয় উবি নাইসান ঞাডা খালা ইয়ানো সি গেউগি আদাফাস আদাস্তুরা Zoss 3 Ada Fass xale yi jàppante nañ lekk bëtt na ko mu bañ da koy bëtt mu bañ da koy ñaari xale yaa ngi noonu ñaari xale yaa ngi noonu Zoss 3 Ada Fass Zoss ñaari xale yaa ngi noonu si géew gi bañ ñee daje ba daal bàyyante wuñu arbitre atte na leen arbitre atte na leen ñoom ku dem ardo ñu xool wala dafa ñu xool ndax daa dem ku am ku dem naani soow wala déet Zoss noonu Zoss 3 a ngi noonu Ada Fass a ngi noonu ndeysaan nee na course bi toog ci siège bi <coughs> nee na nee na course daanu woon damal toog ci siège arbitre bi sifle waat na arbitre bi Abzos 3 Ada Fass Abzos 3 léewtoo waat nañu Ada Fass jëlaat na ko jëlaat na ko delewaat nañ buum sa mboy mboy ga delewaat nañ buum sa mboy mboy ga ñoom ñaar saan caxabal mu bañ Ada Fass mu jàpp baax na soo xoolee dafa dëbb naax waaye Zoss sàmmal say tànk taxawaay bi ni nga taxawee bu la aada xawee sàcc tuuti bu la lonkee caxawal da lay def wóorut saan Josa ngi du xos Josa ngi bu sew Ada Fass def na demi flexion Ada Fass def demi flexion waaye demul Ada def na demi flexion ba tolloog moom saan Jos 3 Ada Fass Zoss 3 Ada Fass mitan nañ ñoom ñaar daa mel ni dañoo saan arbitre bi ñoom gannaaw bañ mitan wee ñëw ñoom ñaar gannaaw bañ mitan wee ñëw bañ bëree cinq minutes yi noppaluku ñëwaat nañ di wax ak ñoom lamb nangoog lamb bañ saaku yi fekkiwul kenn yéen a leen di fekki loos dóor si loos amut saan pare nga arbitre waat na nee na Zoss ndax pare nga nee na Zoss ndax pare nga Arafa Zoss mais mais Zoss mi Zoss mi gauche droite mi def nii nu mu fa demee lii hey Zoss 3 Zoss 3 bu jàmm gan at Arafa premier départ Arafa Zoss la Arafa ba Zoss jëlaat na tànk ba jël na ko sànq ñaari yoon mu échec te ñu ne ko coppet képp ko Ada Fass Zoss daan na ko Zoss daan na Ada Fass ay waay Zoss daan na Ada Fass Zoss daan na Ada Fass gën daan na Ada